monsieur le ministre vais réitérer mes félicitations ci bi le président du département de Solobi, mais féliciter les féliciter collaborateurs collaborateurs ci ont depuis son excellence le président Macky Sall le la ci département monsieur le ministre bala may vous me permettrez juste de féliciter mon grand frère le directeur de l'APDA sama Bokumbour, Mbour Pape Amadine pour liggéey bu rafet bi muy def direction bi de nuyu tous vos collaborateurs mais aussi sunu sœur Ami Mbacké ñu ngi euh, monsieur le ministre je féliciter le président de la république pour l'ambition programme bi nga la formation professionnelle technique et euh, l'apprentissage. apprentissage parce que dans le document vous avez des projets phares pour 2020 à savoir la formation professionnelle et technique et l'employabilité fas ngeen 12 000 bénéficiaires c'est gis nañ 50 yi yéen euh, monsieur le ministre rafetlu aussi la formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité Nous nara a jël 13500 yo xamné dinañ ci 40 yi aussi nek ay jigéen. monsieur le ministre ci wàllu sa programme de formation école entreprise gis avez aussi jël ngén 25000. Euh, jeunes et femmes qui ont été fas yéene 2020 programme ngeen formé len monsieur le ministre lolou nak ñukoy koy rafetlu bu baaxa baaxa baax parce que xamnañ nañ ne son excellence le président Macky Sall denk bokku na ci li tax ñu jot li nga mom moy émergence président teunk ko ci 5 3 5 donc monsieur le ministre ce sa programme 2 nga xam ne ko développement euh, de l'artisanat et de l'apprentissage. fofu lay duggé dans le département de Mbour monsieur le ministre euh, bo xolé tay suñu village artisanaux yi. Mohamed xam da nga dem sali, dans la commune de Mbour wala nga ñëw Ngaparou wala Somone monsieur le ministre programme spécial pour ces sites touristiques yoy nga c'est sur la Petite Côte et dans le département de Mbour monsieur le ministre à quand la modernisation de l'artisanat au Sénégal loolu lu ma amal euh, lu ma ñor la monsieur le ministre te bëggoon naa vraiment laaj sa xalaat ci loolu. monsieur le ministre bëgg naa nga continuer di accompagner di encadrer et di financer secteur wu artisanat surtout sur la Petite Côte comme ni ma ko waxee monsieur le ministre. monsieur le ministre ñu am benn lycée boo xam ne ñun département de Mbour dañu koy xaar mu ubbi ay buntam. ndax filière yi nga xam ne si ngeen tënk ngeen ko ci lycée technique professionnel bu Sandiara ñëw nga fa ki la fi ki nga fi wuutu aussi nous na fa te yàgg naa ne yàpp jàpp ne projet bi dafa yag. te département de Mbour da koy xaar parce que monsieur le ministre Hamna naa sama ñoom mm, mbokk yi ak ñoom euh, nangu mais nak Mbour pèse lourd dans la région de Thiès te secteur bingayor nga yor réussir te boolewoo ci département de Mbour nous tourisme ou artisanat le département de Mbour wax artisanat heureusement pour nous que le président choisit un fils de Mbour pour nous diriger la PDA. nous kon monsieur le ministre firnde la ci